particulier bi day fay est-ce que benn la. Eh, munu du benn xam loolu ñëpp xam nañ ne du benn. <laughs> y a une du bari ñun vingt et quelques mille la ñuy fay am na as euh, particulier yoo xam ne cinq mille francs le mois ak yeneen si vous me le permettez. allez-y. Euh, bu ñu wax insécurité insécurité total moo nekk ci yangu bu mu tudd tur. Euh, moo ah, nekk ci application yi voilà moo nekk ci application yi. parce que ñun dañuy recevoir ay nit yoo xam ne nii dañ ciy dugg di dugg ci ñun di jooy man nag euh, euh, li may dox moo ma may booy wax dama lay déglu parce que ñaali ci tali bi lañ wax parce que occasion yu mel nii dama koy am te bu may dem damay am lu may yóbbaale lu leer loo xam ne nii ci usagers yi lay jóge muy lu neex muy lu naqar yi waaw dafa ne ñun am amul sécurité parce que kii ñëw mënoo ko détecter si bien sûr parce que oto taxi boo gi da nga xam ne kii taxi la zone est noire am na licence am autorisation pour def transport li ngay njëkk a gis rek égal kii maanaam lu tegu ci yoon ngay njëkk a gis mais ñoom am na ci ñoo xam ne ni dañuy woote mu ñëw duñ d'accord ci oto bi mu nekk ab particulier boo xam ne ni. Euh, xam nga ni ñoom dañuy faral di wax ni sooy sooy wax sooy wax ak euh, kii war a ñëw yow war nga am choix ne ko lii laa bëgg wala moom mu ne la lii mooy ñëw man lii laa yore. Mm-hmm. mais dañ ciy jote client yi ñoo koy nettali ah. da ngay choisir confort wala classique. dépend ñoom kii li muy d'accord chauffeur bi man oto bii laa yore taxi laa yore wala particulier laa yore mais xam nga luy insécurité. Mm-hmm. insécurité weesuwul nga ne da ngay def transport en commun yow. li ñoom li leen intéressé mooy kii ñëw kese mais euh, chauffeur transport en commun dafa war a am euh, permis transport en commun daf ko war a am te ñoom seetuñu kii poids léger la am wala poids lourd wala transport en commun lijjantiwuñu loolu am man gis naa ci ay chauffeur yoo xam ne bu nekkutoon application yi duñ duñ def transport jamais de la vie occasionnellement parce que ñi leen recruter am na loo xam ne duñ ko xool ci ñoom mooy dañoo bëgg seen marché dox dañoo bëgg seen i mbir mu siiw ñu xam xam nga euh, man dama xam dama xam ne nit ku ñuul soo ko tëggaloo or mu rax ci përëm ñoom bi ñu ñëw Sénégal. Mm. dafa am lu ñëwee woon dañ doon liggéey ak taxi yi loolu moo leen taxoon a jóg. dañ doon liggéey ak taxi yi. taxi yi lañ doon liggéeyal et loolu lañ wax. di jël taximaan yi man j'ai beaucoup d'amis yoo xam dañ ci nekkoon mais dañ ma ci doon bëgg a dugal man leen noonu yéen comprendre leen bay lu muy dundee ba sax si kii mën na cooy way ba dee. mais taximaan yi dama nee ne rentable. waaw moom laay foofu laay ñëw. c'est-à-dire dañ leen a xëcc dugal leen seen biir gars yi di gis seen bopp mais bu ñu demee ba xam ne ni liñ bëgg am nañ ko mooy siiw na gars yi xam nañ ko clients yi commencé nañ ko bëgg. ñu commencé di dugal yeneen taximaan yi di commencé gis seen bopp di rocceeku mais boobu ñu ngi commencé di yaatal terrain bi particulier yi tamit di ñëw mais particulier boo xam ne dafa wàcc bureau taal application heure bu la neex nga taal heure bu la neex nga fay. te yéen àndoo leen ci. munuñ ci ànd parce que ñun laaj nga ma léegi assurance bi assurance bi dafa cher ñuy fay droit de stationnement droit de stationnement da nga koy fay ci mairie yi.